ah eh, boo demee de moom ndeysaan dafa bëgg a dem ca xare ba tax muy jéem a daj waaye dañuy bàyyi leen ko noonu ah, ok waaye bàyyi leen ko dafa bëgg a dem ca front ah. sëriñ mii moo ma bëgg yóbbu ca front ba ah. ba tax na yàlla boole la ku am sago sant yàlla la ndax baat boobu mu wax ci champ de course ci waxtaanam yoon te mu wax ni yonent bi bi mu fi mujjee jaar gàmm yóbbante naa ko waaw ñu ni ko loo ko yóbbante mu ne wakafa allahu almuminina alqital looloo fi indi jàmm ji ba léegi di waaw bu ko defee kon nag xëy na beneen jamono leneen dana xew waaye pare nañu sunu bopp nag waaw boo gisee façon bi mu defee sax ak nervosité bi mu am démb mooy dafa am ku ma sifflé ni ma am na ñu ñu yebal pour ñu attaquer sa cortège ma wax ko maam ni ko ça c'est votre affaire waaw ñu proposé ma ci niveau sécurité pour ni nañu changer sa itinéraire bi ngay jaar pour dem course ba ma ni il n'est pas question fa ñu daan jaar rek la jaar ku sa bakkan rep nag tey fi nga yem parce que am na loo xam ne boo amee waxuma la sécurité waxuma la ñun mais jigéen ñi ñoo lay yóbbu laaxira wallaay ndeysaan wallaay baarakallah ab tayibaatu rek li tayibiin waaw ah. wa tayibuuna li tayibaat ah loolu moo fi nekk ba tey kon nag ah yeneen occasion dana am ndax am na ay bokk yu ma ñaanoon ñu defal leen jataay dégg naa Oustaz Cheikh sax tudd na leen ci list yi seen taxawaay ba man ma waroon leen defal waxtaan ci tamxarit bi waaye booba réew mi moo demee noo xam ne ñuy soog a jóge ci élection yi bu ma defee waxtaan rek ñu fàtte élection yi bëgg jël waxtaan wi def ko tafantaloo moo tax ma ni nañu bàyyi ba yi passé waaw ñoom ñëpp tabaarkalla waa kër mëggey njare suñu maam yu baax yooyu leen waaw waaw waa topp bi ca kër ñoom oustaz Mbaye Diop ak imam Samba Diop waaw ak waa kër Ngunta Diop waaw ak ñeneen ak ñeneen di ñaan ñu may leen waxtaan xanaa bu ma jógee gis ceeg oustaz Cheikh ñu seet beneen date daa ci waxtaan yooyu sax ngay gën a am jot daa gàmm yi dootal dara waaw dangay ngay jéem a wut occasion rek loo mën a rëdd nga rëdd ko waaw bu ko defee ñu gërëm ñi fi teew ñëpp kilifa yu baax yépp rawatina Chérif Jamal ak Tijaani gërëm ko gërëm njabootam yi mu àndal te di ko yóbbante nuyoo ca kilifa ga nekk fees waaw Cheikh Zubair nuyu itam te sant sunu délégation bi jóge ci al azhar waaw te xamuñu leneen lu dul li ñu xam rekk waaw ñoog ñoom ñaar fukki atak nii ñuy gàmmoo fii maa ngi dem ba yëg ni mas nañu yónnee benn lettre mu jóge affaires étrangères dem ca ambassade bu Égypte pour di leen wax ni lu tax bu ñu defee réception gàmmu Tiwaawan ambassadeur yeeg yëpp dem foofu yéen ngeen di dem champ de course ca Moustarchidine yi ambassadeur bi ni leen mais al azhar ñun moomuñu ko gouvernement bu ñëw fi ngay fekk al azhar ñoom ñooy tëralal seen bopp seen programme te li leen doy ci ñii lañ ko gis waaw kon nag foofu lañuy ñuy gàmmoo ji dañu bëggoon tere képp kuy ñëw ci ñun ndax soxar rekk waaw ndax jar na ko li benn mbokk wax ci suba ñu ngi ma koy nettali mu ni ndax xajati nañ ci kursu bi góor gi ma son na ko wax waaw ñun xajatuñu ci kursu bi mais fu ñu jëm waaye it xanaa ñu gën a organiser wu rek bu ñu mënee fexe ba li nekk ci biir course bi ñu def lu ni mel ci biti course bi wut fa ay écran géant xëy na mu tane waaw incha allah xalaat na yu bare te maa ngi jëm ci yu bare Tiwaawan gii ci sunu loxo dafa tollook rekk nag liste d'attente liste d'attente la ñoom tàgge nañ ma leen ñaari yoon billahi wal dañ leen yërëm rek ba ñu mujj leen bàyyi ci list d'attente bi mu daa am na koo xam ni bul xëccoog moom mukk waaw ndax mag ñee yor yépp waaw bu ko defee kon nag <laughs> am na loo xam ni defe ko fa mu amee solo dama toog keroog xalifa Sarr téléphoné ni dafa am ku ma woo ni ma suba dañu war daje pour affaireu gàmmu gi te dañ leen a yéex a yéegal yéen waa Moustarchidine kon ko kañ ngeen ñu daan woo ci defaru gàmmu mais ku jaaxle ku jaaxle jaaxle nga waaw waaw chaque chose en son temps am na loo xam ne mag ñi ñoo koy tëral te ñooy joxe ndigal bi ñu doxal ko luñ ñu jox ndigal buñ ca yeggee lu ñu war a def ñu def ko waaw bu ko defee kon nag yal nañu yàlla may dund yal nañu yàlla may wér comme ni ko Chérif ñaane sànq ku ne gis na Covid 19 bi bi mu fi jaaree li mu fi def yépp ndeysaan Chérif Tahir joxe woon baatam ba ni dafay gàmmu si waaye dernière minute rekk moom yaram wa téye ko ba mënul ñëw waaw mu ne waaye ñii ñëw yépp man la ñuy ñëwal waaw mel ni kon nag ku yebu looy def nga xam ko ambassade du pays arabe yi nañu def très attention parce que des na tuuti Macky Sall dootu fi nekk te ñu ngi wane seen far Moustarchidine mësul yëngal dara ba pays arab yi bokk ci ñépp nag waaye bés ci kanam Macky Sall dootu fi nekk bu boobaa nag ñoom ñoo xam ak seeni ambassade duma ca xuus bu ko defee kon nag gërëm ñi sonn ci yëf yi rekk te ñu lim leen Oustaz Cheikh wax ko ci liste bi ñi ñu fi tudd ñépp waaye itam ñi leen jàppale ci liggéey bi waaw wa service de sécurité yeeg sapeur pompier yeeg wa tabarakallahu journaliste yi fi ñëw yépp moo xam ci ñu nekk télévision yu mag yi la sama mbokku bopp yi ndeysaan Mansour Diop waaw ak Pape Djibril Fall ndeysaan député waaw ah, wax nañ ma seen teewaay fii la ñu dëkk moo tax bañ ma ne gaañaa ngi négocier ak Pape Djibril ma ne ban Pape Djibril man ma ma xamoon ne ko am na loo xam ne bis bu ko nangoo xamal ni dootul moom waaw waaw tabaarakallahu nitu principe la ci lima xamoon ci moom waaw bu ko defee rek ñoom ñépp ñu nuyu leen gërëm leen sant leen ñu yore réseaux sociaux yi ay sànn léeg ma am ñu ma tooñ léeg eh, ñu ne ma ma gis nga sa photo bi ci réseaux sociaux yi ma ni ki tukulóor bu ñaaw rekk waaw walay ndeysaan waaw tukulóor bu ñaaw rekk ñoo ñoom maam Cheikh ñii ñoo war a photo ñoom waaw tax bu génnee ma gis xale yi daanu rekk ma ne waaw kay waaw lu nekk ak ka ko moom waaw te ku añaanewul sa dono rekk yàlla suturaal la nag yàlla na ngeen dund waaw seeni mag tabaarakallaahu soxna mu xayre nga nele soxna Fatima ak seeni boroomi kër buñ ma nee Cheikh Omar indi na fi ay nag ni ma soxna Fatima mook borom këram Moustapha jëndal nañ la ñaar fukki xar